وقلبك ولا سادات الأموات لكن أرادي عليهم كالسماوات وقلبك ولا سادات الأموات لكن أرادي عليهم كالسماوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillaahi rahmaani rahiim fas yéene ñëw ci téereb sëñ alxaaji mbàkke bi ci xaaju fukkeel bi tombe ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci tomb bi sëriñ bi am na naar bu ko mas a wax maa fi fii saxar di ko junj ay taalibe yoo xam ne dañ doon liggéey ba julli juuñu sëriñ bi ne ko fa waylun lil musalliin di ko xamal ne julli taxut a mucc juróom-ñett fukk ci tomb bi sëriñ bi mas naa laaj suuratul mulki ñaata laaya la ñu ne ko fanweer mu ne laaya wu ci ne am na fanweer yi maanaa juróom-ñetteelu fukki tomb ak benn sëriñ bi mas naa dégg ñu naan sëriñ Jaasi si day daa man alxuraan lool te rafet la ko mu woo ko mu ñëw mu ne ko nit ñi de it dañu ne man nga alxuraan mu ne ko ñi ngi koy wax de sëriñ bi ne ko tareel ma suuratu baqara ak suuratu ali imran ak suuratu nisa ak suuratul maida muy tari sëriñ bi di ko déglu ba mu àggal mu ne ko wax nañu dëgg de waaye nag alxuraan wal xadiis wa manaafihu daaray ni lii maa moom alxuraan ak xadiis ak njariñi àddina ak alaaxira sëriñ jaase daal di fa saasa sëriñ bi ne ko bindal ma ab kaamil ba mu ko bindee ba indi ko sëriñ bi laaj ko luñ la ci daan jox ci benn kaamil boo bind bu ne mu ne ko ñetti dërëmi ngurdu sëriñ bi laaj ko fa nga nekk ci kajoor ku la fa gën a jege ci fere yi muy taalibe yi mu ne ko sëñ ma Sàmba Jóob Sàmb sëriñ bi bind ay xaraf jox ko ne ko boo demee ne ko mu màggal kaamil bi bi sëriñ Njaase ñëwee ci sëriñ ma Sàmba Jóob jox ko mbindum sëriñ sëriñ sëriñ Tuubaa bi mu yër ko ba noppi laaj ko luñ la daan jox ci kaamil bu nekk mu ne ko ñetti dërëmi ngurdu sëriñ ma Sàmba Jóob jox ko ñetti téeméeri ngurdu sëriñ Njaase nar koo jox kaamil ba mu ne ko jëru ko araf yi sëriñ bi bind rek doy na ma ci sëkk juróom-ñett fukki tomb ak ñaar sëriñ bi mas naa laaj mag ñi hadiisu niyatul muumin ablaxu min xamalihi yi mu ci jublu mu ne ko xanaa mooy yéene jullit moo gën jëfam walla moo gën a jot jëfam mu ne déedéet lim ci jublu mooy yéene jullit ju mënta jëf moo gën a jot jëfam ji àndul ak yéene juróom-ñett fukki tomb ak ñett sëriñ bi mas naa am kum doon ñaanal kooka day wax cim xelam bu ma sëriñ bi waxoon li muy tari day ba ma koy ñaane sëriñ bi ne ko suuratul faatiha ak suuratul xadri ak kursiyu koy tàggool jàng ko bu seen gisee jeexul da ngeen gisewaat ci àddina su jeexee nag dangeen ngeen gisewaat ci àjjana juróom-ñett fukki tomb ak ñeent juróom ñetti fukki tomb ak ñeent jamonoy sëriñ Touba ku masaana ñëw njëriñ fajar day mel na ay mbott ñooy sab ci kër gi kàddu yi ñiy jàng alxuraan ak xasida kenn du tal kenn bu guddee ñuy yëkkati sëñ yi nee na nag lii sëriñ Saliou Mbàkke moo ko ko nettali juróom-ñetteelu fukki tomb ak juróom sëriñ bi nee na juróom benn isib ku ko saxal dara luy lore ci àddina ci diggante asamaan ak suuf du la mënal dara loolu mooy gàttalu waxtaani nettali bi juróom ñetti fukki tomb ak juróom benn sëriñ bi daana digle fukki isib bis bu set am ñoo xam ne ba leen koy digal feruñu ijji nga xam ne dañuy yendoo ba mujj ca la ñu jaare màkkal alxuraan juróom-ñett fukki tomb ak juróom-ñaar sëriñ bi daana digle ñaar fukki isib lu bari lool juróom-ñett fukk tomb ak juróom-ñett sëriñ bi nee na kuy saxal ñaar fukki isib bés bu set da am yaqin ba doo xëccoo kenn te doo bañ kenn te doo iñaane kenn te doo fët kenn te loolu lu tuuti la ci ay jagleem juróom-ñett fukki tomb ak juróom-ñeent sëriñ bi nee na ñaar fukki isib ku ko saxal doo manqué njël benn bis ci sa kër juróom-ñeent fukkeelu tomb am na jàngalekat bu doon dóor ay goneem gone yi ñëw wax ko sëriñ bi mu tere ko ko mu bàyyi ko ba yi gone yi dañ ko ñeme bay war ci kawam waaye teewul ñu bari mokkal ci moom juróom-ñeent fukki tomb ak benn sëriñ bi nee na gaaw mokkal alxuraan ak fonk kilifa da ko fee fekk ci mbàkke waaye defu ko ci juróom-ñeent fukki tomb ak ñaar sëriñ bi nee na am doom man koo taxaw ba mokkal alxuraan te defoo ko ci kaw suuf fii amul lu ko fi jar daldi di dóor loxoom ba fi kaw suuf juróom-ñeent fukki tomb ak ñett sëriñ bi nee na ku ma toogal Touba di ma jàngaleel alxuraan loo bëgg mu fekk si la ku ko deful nag mel ne naaru gànnaar luñ bëgg dañ koy dem wuti ko juróom-ñeent fukki tomb ak ñeent sëriñ bi nee na ni ma gëne ñi mokkal alxuraan ni la ñi mokkal alxuraan gëne ku dul man juróom-ñeent fukki tomb ak juróom sëriñ bi nee na ñett ñii ñoo nuroo mbóot wala yu kaamil ku mokkal alxuraan dëgg waxteef dëgg ndax wala yu kaamil mën nay waxtaan ak yow téewul mu nekk feneen di def leneen ku mokkal alxuraan dëgg itam mën nay waxtaan ak yow di tari waxteef dëgg nag moom it noonu mën naa waxtaan ak yow di def leneen juróom-ñeent fukki tomb ak juróom-benn sëriñ bi nee na ko mokkal alxuraan seetatu ci dara ndax muñ ak lewet lay boole muñ ak lewet lay boole ak lu bari ci jikko yu baax yi doog a mokkal alxuraan juróom-ñeent fukki tomb ak juróom-ñaar sëriñ tubaab bi mu nekkee njëreem te tubaab yi may ko ñeent fukki rek yoo xamante ni si ñoom ñooy féete ci kër gi sëriñ bi dafa waxoon ñu mokkal alxuraan rek la ñuy doon juróom ñeent fukkeel waxtaan ak juróom-ñett sëriñ bi nee na alxuraan alxuraan ci boppam ñam wum fonk la te du ko def ci fudul ndab lum fonk kon loolu mooy li nga xam ne mooy fukkeelu waxtaan bi